tam la mu xamle mooy ñooñee bokk ci askan wi te ñenn ci ñoom ñàkk seen bakkan te dara waralu ko lu dul Covid dina ñu fexe uh, ba jébbal leen seen boroom ci anam ya mu waree moo xam itam ca sëggu jullit wala itam uh, beneen diine lu ci mën a am moom Amadou Ba ne nguur ak Sénégal dina toppatoo mbir moom moomilee ba tey uh, Covid 19 ak loraange yi mu jur ñu yëngatu ci wàllum ganaar foofee ca diwaanu Thiès ne jafe-jafe la ñu am ndaxte li ñu am ci nen ak ganaar Ndiaye loolu nag la ñu dénk Cheikh Anta bu ñu dénk itam wàllum développement communautaire fësal na njaboot yi nga xam ne dana war a jot ci ndimbal li jóge ci euh, nguur ak Sénégal bokk na ca itam euh, région bu Dakar ne ñu euh, njaboot yañ ci fas yéene jàppale ëpp nañu téeméeri junni ak juróom-benn fukk ak lu tek ñu ne nag ñoom dinañ leen dimbali ci mbir moom mi loolu nag Dakar la bu soxal ñeent ci yi mbokk mbokk yi mooy ponk yi fi gën a fës ngeen taaxee lu ma léegi ñu faram rafetlu ci ànd bi ak kóolute bi ci télévision Futur Média xibaaru diggu bëccëg gi mbokk yi dañu koy dooree ak euh, jàngoroy Covid 19 euh, juróom-benni cas yu bees ñoo yokk ci ñi ko amoon lool nag euh, Abdoulaye Diouf Sarr di jëwriñ bi denk wàllu wér-gu-yaram moo ko xam xamle tey jii ci alxames ci li mu wax rek mooy ci téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ñu def test yi juróom-benn yi ñoo ko amee bañ leen caytoo itam ñu jógee biti réew ñëwoon di seeni jege ñaale wala lu mu ci mën a doon ñoo leen wàll bi la jàngoro Ndiaye moom Abdoulaye Diouf Sarr la mu xamle itam mooy ñi tëddoon ci lalu euh, hôpital ndax euh, Covid 19 fukk ca ñoom wér nañu ba nañ dellu seen njaboot ñu teewlu ministre de la santé porte parole du jour. juróom-ñeent juróom-ñeenti test yi ñu def tey juróom-benn ñoo ci positif bon ñoom ñoo am jàngoro yi. lu juróom-benn yoo xamante ne ay cas contact yu ñu doon suivre la ma yëgal leen tam te ci tey bi fukki patient yu ñu hospitalisé woon wér nañu tey danañu génn hôpital tout à l'heure ñu yëgal ne patient yu ñu hospitalisé ñu ngi yëg tan bu baax si bésu tey bi ba mu commencé ak léegi ñaar téeméer ak juróom fukki cas lañu déclaré fii ci senegal si ñaar téeméer ak juróom fukk yooyu téeméer ak ñaar fukk ak ñett wér nañ si ñaar décidé si kenn la ñu évacué bon ak téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ñoo nekk suñu hôpitaux yi ñu leen di faj ñu seetlu ne fan yi passé am na ay cas yu wax transmission communautaire yi fi feeñ bu baax ci kaw loolu ñu ngi demander population sénégalaise yi ñu respecté bu baax lépp luy mesure prévention ko ci leen demandé aywa ñu des euh, ministère euh, de la santé gannaaw euh, moom Abdoulaye Diouf Sarr ba noppee itam jébbal na kàddu gi nataangoom di Amadou Ba jëwriñ bi ñu dénk wàllu biti réew mu wax ci turu nguur ak Sénégal la ñu xamle rek mooy nguur gi ci boppam jël na koppar yoo xam ne ëpp na fukk ci ay milliards ngir jàppale ko doomu Sénégal yi ne ci biti réew rawatina dëkk yi mbas mi sonal la mu ca teg itam mooy ñi ñàkk seen bakkan gannaaw ba ñu leen jaalee seeni jegeñaale la ñu xamle rek mooy indi fii waaye nañ leen jébbal seen borom ci anam ya mu waree ndax nguur gi eh, jël na bépp matukaay moo xam eh, eh, diine bu nu bokk ñu teewlu Amadou Ba. amoon nañu nag aada koo xam ni da nga wàññeekoo bitim réew moo xam say mbokk dañ lay andi moo xam ambassade bi da dimbali moo xam ministère bi da dimbali mais ñun mën nañu seede ni ñu bari ci ñoom. président Macky Sall ci boppam jàppale na leen ndax ñu mën a delloo si seen i néew fii ci Sénégal mais fii jamono bi toll tey recommandation yi nga xam ne jot nañ ko ci min OM yi nga xam ne am na ak conseil yi nga xam ni sunu autorité yi nga xam ne ñoom ñoo toppatoo ci wàllu santé wax nañ ñu ko fi mu nekk nii ñooñu mënuñu leen andi Sénégal li ñuy ñaan seen i mbokk mooy nañ leen denc fi nga xam ni foofu la yàlla jëlee seen bakkan dinañ nag jox nañu ay instructions. pour que sunu ambassades yi ak sunu consulat ñu jàppale ñooñu pour ku ci nekk diine bi nga bokk wala aada bi nga nekk ñu fexe ba ñu denc la ci anam yu dëppoog yooyu moo tax président joxe na ndigal aussi ñun wax nañu sunu consulat yi dëkk yi nga xam ni dafa jaar ñu jënd suuf si ñu leen di denc ba ñu mën fa tëdd kooku it incha allah dinañ ko def ci nu mu gën a alal ji njëkk a yóbbante daanaka loolu lay jariñ maintenant am na yeneen senegale yoo xam ni yàlla mën naa dogal ñu wàññeeku ci yeneen feebar bu dul feebar bii nga xam ni tey jii moom moo sonal àdduna bi yëpp ñooñu dinañu waxtaan ak docteur yi nga xam ni ñoom ñoo constaté seen décès képp koo xam ni jàpp nañ ni du feebar boobu moo la yóbbu bu say mbokk yittewoo ñu denc la fi nga wàññee mën nañ la ci jàppali waaye bu sa mbokk yi jàppee ni da war a ñibbisi te ñun ñu xam ni du feebar boobu moom moo tax nga wàññeeku lépp loo xam ni gouvernement bi daan na ko ci def wala gouvernement bi mën na ko dinañ ko fexe ba ñooñu mën a ñibbisi. aywa ñu des euh, ministère de la santé fekk fa Pape Fara Gningue tey moom la ñu fa yebal Pape Fara maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay mu mel ne tey nag kaa euh, communautaire yi nga xam ne démb daal mu ëlëmoon askan wi tey Abdoulaye Diouf Sarr li mu xamle rek mooy amuñu loolu ñu naan transmission communautaire maanaam euh, ki for tawat ji xamul kan moo ko ko wàll. dëgg la faat yi noonu nga ko waxee noonu la waaye nag yi li ñuy mën a wax rek ci juróom-benn cas yi nga xam ne moom la ñu am ci lu tollook téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent juróom-benn yi ñoom ñoo ci am jàngoro ji fukk yi daal di wér mais juróom-benn yooyu ñett yi ci xibaar yi nga xam ne moom lañ jot ci diwaanu Louga la doon ndax nag ka ko wàlloon nag kooku cas communautaire la kon ba léegi rek mun nañu jàpp naam tey annoncé wuñ cas communautaire mais cas contact yi ñu am. am na ci ñoo xam ne wax dëgg yàlla seen i mbir nekkul loo xam ne lu leer la bu baax mais askan wi tamit buñ dégg ne tey amuñu cas communautaire mais ñu fàttee ñaar fukki nit yoo xam ne issue de transmission communautaire la ñu am maanaam ñi leen ko wàll ñu ngi dox ci askan wi te mënuñoo wax ne ñoom fii lañ ko jëlee kon tey buñ nee amul cas communautaire rek ci ñi nga xam ne ñoom lañ jot a xayma bu mu tax ñu naan jeex na jeexut de mu ngi ci biir askan wi farlu gi foofu la ministre bi jeexalee maanaam ñu jël matuwaay yépp bu ko defee ñu mun koo xeex ndax nag gannaaw ñoom ba nga xam ne xam nañ ne lu dugg ci commune bi rek ñi ko gën a jege ñoom ñoo koy gën a moo tax ñu jox gouverneur yi les pleins pouvoirs pour ñu mun a dugg ci askan yi na nga xool nan ngay mën a taxawee ba mën a xeex mbir ma ndax nag ku ci ne def nañ sa responsabilité si say loxo kon xeex bi nag responsabilité individuelle la maa ngi ko dem wax lu tëji école tëji université tëji hôtel nasaxal économie dem béeg dikk bi ci àdduna bi ñun bañ juddoo ba léegi ñoo gis ne tey avion du naaw daal di dugg suñu biir réew lu dul urgence kon loolu war naa yee askan wi lu doy waar la naam peut-être euh, nguur gi ñoom ñoo yor décision yi ndax dañ leen fal ñu décider ñu est-ce que sénégalais yi duñu semaine deux semaines pour ñu bañ a souffrir ay weeri weer loolu lépp ay question la démb ca Petersen boo fa demee na mu meloon mu ngi fa mel ca buntu Pikine ba léegi na mu meloon mu ngi fa mel ca yeneen diwaan yoo xam ne ñu ngi fa dem bëccëg bi naam ku fa am na guddi gi kenn nga kenn du génn mais bëccëg bi soo gisee yenn attitude ci sénégalais yi da yaakaar ne état d'urgence amul feebar amul te feebar bi léegi jugeetul ci réew suñu biir lañ koy wàllee yaakaar naa tant de questions la ñuy wax kon ni nga ko waxee léegi rek ministre Amadou Ba li nga xam ne moom moo nekk koppar yi ñu leen fas yéene jébbal mu nekk ñaari phase yu am solo bu njëkk bi phase d'urgence la maanaam léegi-léegi lan la ñu mën a def bi ci topp nag court moyen ak long terme dimbali étudiants yi nga xam ne amuñu bourse ak yeneen yi nu mel ñëw na tamit daal di wax ci bu baax a baax li nga xam ne moom moo jëm ci néew yi dégg nga ci sànq kon daal li ñu mën a wax daal fagaru faatu moo gën faju te phase bi ñu toll phase bu am solo la xam naa ni ki suba rek incha allah wala fii ngoon ñu dugg ci askan wi ay xibaar yoo xam ne moom moo jëm ci jàngoro coronavirus bu ko defee ñu mën a sensibiliser suñu bopp sensibiliser askan wi. très bien mu nekkoon euh, Pape Faxa ñeen nga ñu koy jaajëfal jaajëfal itam sunu équipe technique ba ñu toogal euh, ca ministère de la santé di leen jox euh, xibaar yi ñu des ba tey ak ponk boobu Pape ju junj muy transmission communautaire coow la ca juddu bari na ba tax na itam indi na njàqare lu ci mën a am professeur Daouda Ndiaye jàpp rek ne nag ay jumtukaay itam moom yu dëgër moom la war a àndal leneen itam lu mu xamle euh, moom borom xam-xam bi lee mooy lu jëm itam ci confinement maanaam toog seen kër ci yenn ci gox yi nga xam ne ay borom xam-xam dañoo jàpp ne mënta ñàkk mu ne itam euh, loolu dafa war a am lu muy àndal muy jàppale askan wi ba na mën a toog seen i kër ñu teewlu euh, professeur Daouda Ndiaye ay kàddoom Abi Faye moo ko taataan. nee nañu amul ñenn donc bu fekkee am na région yoo xam ne amul confinement général ne s'explique pas mais bu fekkee am maintenant confinement au niveau quartier confinement au région war na mën a am bu fekkee ne foofu la egg yi nga xam ne dem nañ ba xam ne mënatu leen gérer c'est sûr que foofu lépp mën na xew parce que je pense que confinement à euh, mais de façon circonscrite par gox loolu war nañ ko mën a nekk parce que loolu mooy rek tax ñu mën ci mais nag loolu pour moi aussi il faut que ñëpp jàpp ci li tax mu lu ko mën a xeex mooy fexe ñaan nit ñi encore ñu continuer toog seen kër ku ci amul soxla ci mbedd bi soxla bu jàmp ñu def ko euh, parce que nag foofu lañ toll nga jàpp ne daal yow koo jàkkaloo sa bopp mën na am ne am na doomu jàngoro te xamu ko yow aussi mën nga ko am te xamuloo ko defe naa bu ko ñëpp jàppee suivre recommandation suivre directive bi bokkaloo nag bokk ndey bokk bàyyi tey nekk benn je pense que transmission communautaire boobu nga nga xam ne tey moo remplacé transmission des cas importés yi parce que yokku na yokk mu ngi professeur euh, Daouda Ndiaye ñu koy sant bu baax di ko gërëm ñu des ba tey ci xeex jàngoro ji di Covid 19 ca bër saalumu réew mi rawatina foofu ñu naan euh, gudomp la ñu nemmeeku rek mooy euh, dem baak dikk ba daal am na ñoo xamante ne si dañuy jaar ci porox ndoll yi di jóge ci yeneen di fa dugg leneen itam lu ñu nemmeeku mooy mbooloo mi ñuy tere itam am na ñoo xam ne dañu ko fay amal mu aju nag ci dëcc yi ak yeneeni xew-xew ba tax na sax itam ñu ngay sàkku rek ñoom kilifa ya ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk. Euh, ca euh, boobule diwaan ñu gën bàyyi xel ci euh, mbir mi dañ ci ànd ak Bakary Konte ak Xaali Thiam si mbandi brasu Ousmane Sané tiit loolu ci diggante Sénégal ak Guinée Bissau frontière bi nu mu bëree ay bunt dugg ak génn ci Sénégal frontière bi dafa bëri ay bunt dafa bëri ay bunt presque dëkk boo dem dëkk yu am yu nekk ci frontière yëpp dëkk boo dem rek buntu dem la bunt dikk la donc yooyu yëpp ay jafe-jafe yoo xamante ne ñun dañ koy am fii militaires dañ leen di ñaax ñu gën a renforcer la surveillance au niveau de la frontière par des patrouilles mixtes par des patrouilles régulières fréquentes parce que loolu rek moo tax ñu mën a maîtriser soxla woon nañ ko bu yàgg ba léegi avec le vol de bétail avec yeneen ak yeneen mais gën nañ koo soxla léegi parce que il y a un ennemi invisible qui est là koo xamante ne kenn du ko gis kenn du ko gis donc il faut que ñu renforcer les entrées et les sorties parce que c'est une frontière poreuse comme ni ma ko waxee bunt yi dañoo bari. ay mbooloo yu bari ñu daat koy gis si yenn communes fii ci Balantacounda bu fekkee kankurang yi dañuy génn wala bokk ñu nar a denc nit koo xamante ne dafa faatu chef de village yi nag ñu daat leen indexé. heure yi la jongal xale yi di génne ay kankurang donc sentir nañu ay quelques résistances ba mel na ni barki démb rek dañuy interpeller ñaari chef de village peut-être fii ñu yendoo leen fii ñu sensibiliser leen ba finalement ils se sont engagés ba ñu ne loolu dootul amati. TANAF collectif enseignants yi daal di defar ay robinet traditionnel maanaam ay bidon 20 litres la ñuy jël daal kay def ay robinet jokk askan bi. boobu ba léegi nag bi virus bi commencé di daw ba léegi dugg Sénégal ñun bu ñu déggee loolu jóg nañu avec les non maigres moyens ñu créé ay dispositifs sanitaires euh, si ndimbalu ICP bu TANAF monsieur Mamadou Coulibaly. ak euh, étudiant wu Tanaafi ak suñu collectif bi ñu defar ay bouteilles yi nga xamante ni si ay bouteilles yu 20 litres la def ko bu mu mel ni genre robinet c'est moins cher. dina permettre ñi nga xamante ni seen loxo peut-être jotu seen ginnaaw ñu mën a am le dispositif sanitaire à la maison. sous-préfet bi Simbandi Birassou daal di ñaax population yi ñi daal di collaborer ak force de l'ordre yi ak autorités yi pour ñëpp taxaw tem xeex suñu ennemi mondial muy Covid 19. Bakary Konte ñu sant la ba euh, gërëm la des ba tey ci biir réew mi ci diwaanu Ndoukoumane moom ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, dund ak euh, waylaago ñoom daal fi mu ne nii dañoo ne ci jafe xam ngeen ne dañoo tere lu jëm ci dem beeg ñoom ñëpp ñu toog seen i kër toog euh, kër googee nag moo tax ñu amee jafe-jafe ndax euh, ndimbal la ñu daan gis nag ci way defal yàlla yi gisatuñ ko ci noonee teew euh, teewlu Samba Diaw mu yore seen kàddu kàddu yi muñ ko dénk ko Ndiaye. am na parce que am na ñoo xamante ni bu ñu génnul dem yelewaani du ñu taal seen kër te tey génn bi jafe na parce que tey boo génnee. da nga doon jël moto dem mais am amatoo possibilité jël moto te bu dee bee nga yor manoo dox ba marché bu dee pousse pouse manoo dox ba marché donc ñun euh, vraiment confinement total bi ñuy wax noonu les personnes handicapées ñoom confinement total lañuy dund fu mu toll ni donc nag kon autorités yi nañu leen nañu gaaw a geestu personnes handicapées ñu ngi naan euh, vraiment ndimbal baa ngi ñëw mais nag euh, xaw naa yéex dafa waroon gën a teel a euh, bar pour les personnes handicapées vraiment ñu mën a gis seen bopp ci mbir mi personnes handicapées yi ñoom dañ leen di war a defal loo xamante ni programme bu spécifique ñu jël leen en compte. aywa ñu des ba tey ci biir xibaar yi wax itam ci diwaanu Ndoukoumane ak itam sàmmukat yi fa nekk ñu ëpp ca ñoom daal danañu rek bu nu moytuwulee ndimbal li nga xam ne dañu koo jàpp ngir jàppale ko askan duñ leen ca boole loolee itam daal la ñuy ñaawlu di sàkku rek daal euh, datu recensement bi ñu gën koo yokk ndax ñu mën leen a boole ci mbir mi ca Ndoukoumane Oumar Ndiaye moo fa toogal télévision Futurs Médias éleveurs yi ci diwaanu Kaffrine nee nañu ndimbal gi état bi jagleel askan wi ñoom ñi ne ni ñu gisee ñu recensé jëmul kër ndax ci ñaari fan képp la ko def te soo amul sens ñenn ñi dañ koy dégg rek. président de la république ñu ngi ko koy rafetlu boo gisee tey bëri wuñu fii da ngay xam ne dañuy respecté loi bi li ñu bëriwul fii rëpp na xam ne sonn nañ ñeneen ñi ñu ngi ci àll bi dañuy jóge ci seen kër yi baxe fa jigéen yi baxe fa xale yi fekk dara nekkul ci kër gi li ñu yaakaar mooy indi fii seen jur yi jaay ko mën a jënd marchandise waat ci kër ga ministère élevage dafa war a xoolaat mbir mi bu baax ndax man man man ànd na ak inspecteur élevage ñu ngi recensé mangaan yi waaye am na ay mangaan yu bëri yi ñu ñu ñu jota jotagul a def recensement ndax bu ñu ko waxee ñaari fan rek loolu du sotti il faut que ñu def ko prolongation lim bu néew néew mu nekk une semaine ndax nga jox ñi bañ a jog ñi bañ a jog ñëpp moo ko gin ñun élevage lañu dañu dëkk fii ay éleveur lañu. am na ñu bëri daanaka bu fekkee ne téeméer lañu woon fanweer yi lañu recensé juróom-ñaar fukk yi recensé wu ñu leen. ñoom nag li ñu sàkku ci nguur gi mooy lu mu néew néew. na ku ne am sag tuut bu loolu mënta am na ci ñëpp yem. waaye recensement bi dafa gàtt man ànd ànd naa ci bëgg nañ recensement bi yokk ko mu àgga ci éleveurs yu nekk ci biir dëkk yi mu tasaaroo si éleveurs yu nekk ci àll bi yu nekk ci wénd yi yu nekk ci wénd yi moom. liñ recherche amul sax kaajam. te bu ñu waxee ne tey am na éleveurs yu ñu dëkk fii ñu ne liñ leen jox nañu ko jaarale ci village yi ñoom xamuñu éleveurs yi dekk fii bu ñu leen deful recensement comme ni ñu ko defee ci wend yi du mën a leer ndax ñoom xamuñu éleveur village bi xamul éleveur bi ñaata jur la am xamul ñaata doom la am mën na xam rek ñi fay lemp ñi fay imp rek lay lay seet loolu nag lu jar a xoolal ñu ko wakkee ñaari fan rek loolu du sotti il faut que ñu def ko prolongation lim bu néew néew mu nekk une semaine. ndax nga jog ñi bañ a jog ñi bañ a jog ñëpp moo ko gin benn dara rek ci région bu Kaffrine la yenn ci éleveur di xorxoraatu bis bu ne ngir ñu mën a am lu ñu yóbbu seen kër waaye laata mi di dee ñu tasaaroo ndax ndogal bi ci kilifa yi nekk ci gox bi ci la tukkee moo Ndiaye jërëjëf ñu wéyal xibaar yi mbokkee yi nañu ko waxee woon ca ponk ya ca diwaanu cees moom yëngatu eh, ci yarum ganaar ñoom ñoo ne ci jafe-jafe bokk na ca loolu wax ne ñu daal fi mu ne nii jaay ganaar wala nen eh, nekk la mbir moo xamante ni si yombul eh, tey itam ne nu bu wéyee nii soo moytuwulee kore gi ginaar du am dañuy dem ci diwaanu cees fekk fukk ñu naan Cheikh Anta mu ànd ak say latiya ñi nga xamante ni ñu ngi ñëw yëngu ci yaram ganaar mu ngi yuuxu wàllu ndaxte nee nañ jamono yi de bi feebaru coronavirus tàbbee ci réew mi ba léegi daanaka dañoo am ay gàllankoor yu rëy rëy. corona bi ki nga xam ne moo ñëw tey li tax mu gën a métti nag ah, moom mooy interdiction yi nga xam ne moom la ñu def d'abord pour nga xam ne euh, euh, restriction yi nga xam ne moom la ñu def ba oto yi du ñu mën a dem nit ñi aussi du ñu mën a indi seen poussin di jour euh, les accouveurs. pour distribuer ko ndax mënuñu gis client beneen bi aussi dañ leen di téye ci yoon bi ñuy am ay problème te loolu il faut ñuy génn di jaay aussi produit bi nga xam ne moom lañ yor léegi bu ñu demee tëj nañu hôtel yi tëj nañu marché yi tëj nañu restaurant yi mais ñun kan la ñuy jaay léegi le peu de clients yi nga xam ne moom la ñuy jot ñun mënuñoo déplacé wu dem pour yóbbul leen ko. là aussi problème la. ñàkk jaay ginaar yi ndaxte nee nañ ginaar yi de dañ ko daan jaay ci hôtel yi ak ci yenn bërëb yi waaye ba ñu tëjee ba léegi de benn ginaar mënatuñ koo jaay te bu buñ sàgganul ci korite gii di ñëw de ginaar du am. bu ñu bu ñu continuer ni ginaar du am. ñu ngi sàkku ci nguur gi mu dimbali leen. comme état bi dafa génne des fonds dedd alimentaire te ñun lii ñu yor dañu koy dunde muy nen muy ginaar pour plus cher ndax fi nekk ni bu ko jëndul conséquences yi dafa bari. yarkatu ginaar yi nag bari nañu fii ci diwaanu Thiès ak ci zone des Niayes seen xalaat moom mooy fexe nag ba nguur gi toog ak ñoom ñu indi ay coppite ci secteur yaram ginaar. Cheikh Anta ñu sant ko bu baax gërëm ko wax itam ci euh, jëwriñ bi ñu denk lu jëm ci développement communautaire fësal na liste bi nga xam ne ay njaboot lañ lu soxla ñu jàppale leen ci lim ëpp nañu téeméeri junne ak euh, juróom-benn fukk ñoo xam ne daal war na jàppale euh, ci ndimbal 2019 loolu nag itam euh, ñu yokk ci limub euh, njaboot ya ñu dugaloon ci registre national bi euh, boobu lépp lim rek moom it ñu ngi ko xayma ci juróom-ñett fukki junni ak lu toof lu ci mën a am dakaar moom kotaawam mi ngi soxal ñeenti département yu région bi tableau bi jàngat beek Aminata Mbaari Sow askanu Sénégal te ginnaaw bi feebar bi di coronavirus tukkee ci sunu réew ministère bu yore lépp lu jëm ci wàllu développement communautaire ak équité sociale daal dinay fësal tableau bi ci biir tableau bi nag ñu gis ci gox gox yeeg goxaat yi nga xam ni askan wi foofee la ñu nekk te ñoom dañu war bénéficier ci jàppale bi jëm ci dund bi ci noone nag ñu jëkkee région de Dakar ci biir Dakar capitale bu Sénégal lim nañ fa lu ëpp téeméer ak fukk ak juróom benni ak ñaari jàppale ngir ñu am lu ñu dundee ginnaaw bi Covid 19 bi faagaagalee économie bi dakaar Dakar ñu jàpp ni ñeenti département la am ñu répartir ko ci département bu dakaar limu juróom ñaari fukk ak ñeenti junni ak lu tek ay kër la ñu war a jàppale jox leen lu ñu dundee bu weesoo département bu Dakar mën na ci teg département bu Pikine foofu tamit juróom fukki junni ci ñeent ak lu teg lañu lim ci ay famille yoo xam ni war nañ leen jàppale ci dund ndax Covid 19 bi lee andi na fi jafe-jafe. département bu Géejawaay lu toll ci fukki junni ak juróom ak lu tek ci lañu compté askan bi nga xam ni soxla na ndimbal département bu Rufisque nag fukki junni ak juróom-ñeent ak lu tek mooy lu ñu lim ci ay ménage te ministère du développement communautaire war fa yóbbu dund lii la lépp nag di wane ni lim bi nag yokku ci kër yi nga xam ni jotoon nañu déjà inscrire ci registre national unique di registre boo xam ni dañ ko taxawal ci atum ci Sénégal te ñu ciy faral di wane ay données ay kër yoo xam ni dañ leen di faral di jàppale bu politique sociale yi jógee lu ci mel couverture maladie universelle ak yeneen ndimbal yuy jógee ci bitim réew Aminata Mbaye Sow ñu sant ko bu baax di ko gërëm wax itam ci leneen mu lu jëm euh, ci sinébar euh, bi nag di yamba ñu jàpp ci rek lu toll ci ñaari téeméer ak juróom fukk ci kilo euh, ñoom nag ñi amal mbir mi di élément yu subdivision bu doon ci diwaanu Saloum ñoom nag teg nañu loxo loolu di yamba ñu xayma ko ci ñaar fukk ci ay millions Ibrahima Jàmme ci ay leeral. malgré instauration état d'urgence bile ak couvre-feu bi ci tegu trafiquant yi nag ñu ngi def seen liggéey ba tey waaye nag élément subdivision des douanes bu Kaolack mayul leen dara ñu ngi jonganteeg ñoom sur le terrain bu baax a baax jàppante bi ci mujj mu ngi am kon ci guddik lundi 6 avril jëm mardi 7 avril ci booru 2 heures du matin ci diggu couvre-feu élément brigade commerciale bu douane bu Kër Ayib ginnaaw bi ñu leen signalé benn opération xaaju guddi kon ci la ñu daal di jóg topp benn bande de trafiquants manifestant yu nga xamante ne ñu ngi woon ci digg àll bi bi ñu séenee nag douanier yi ci lañ daal di ne daw bay fa marchandise ba ci biir forêt bi ñuy duppee Kër Waar fu soriwul dara poroxaan ci opération boobu la nag daal dinañ saisir juróomi colis chanvre indien yu toll ci deux cent cinquante kilogrammes valeur bi nag toll ci vingt millions de francs CFA bu ñu sukkandikoo ci colonel Imam Assane Cissé doon commandant de la subdivision des douanes bu Kaolack seen mission yi tey a baral frontière diggante Sénégal ak Gambie moom nag muy xamle ne nag duñu mës a bàyyi seen loxo ci contexte bi nga xamante ne trafiquants yi defuñu leen ngir profito ci couvre-feu beeg état d'urgence bi ngir mën a def seeni affaire. Ibrahima Diame ñu sant ko gërëm ko yegsi nañ ci ponk bu mujj li ci yéenekaay Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf lii ngay bëgg a yegg ca ñag ba suur su anañu lii direeku di ñëw xeeñul neex cas communautaire yi ñuy dégg ci coronavirus bi bu dakkul du jur jàmm ne bi jàngoro ju duggee ci réew mi ak léegi cas communautaire yi am démb musu fi am juróomi cas transmission communautaire ca Louga la fa am journal bi dañu dalul am xel ne commerçant ba fa amee coronavirus bi wàll na yaayam ji ko jur jàngoro ja te moom rek la xam ne waa ji fu nekk la ñu quarantaine ber leen ci dëkk ba ndax nee nañu dañoo am ak waa ji contact bi wax ñu it ne cas communautaire ni ñu mel ci réew mi guddi yi moo jaaxal ñëpp grand place nañu li jaaxal ñëpp dafa jommal waa Kër Massar ne gox ba dégg nañ ko mu yoxuk jaaxleem ginnaaw juróomi cas communautaire yu fa jotaam rond Kër Massar gi ñu doon ragal mu doona bombe sanitaire bu mën a kalaate ci kaw askan wi bi nee nañu kilifa yi lijjanti nañu ko ba dajeeg dajaloo a toog teel a jël seeni matuwaay ñàkk seen bopp libération nañu cas communautaire yi ñooy jur jàng ji jamono ji ci coronavirus bi ndax ci diirum ñeenti fan rek wàññi nañu fukki cas communautaire ci réew mi réew mi di Sénégal Sud Quotidien nañu boo boolee li fa am yëpp yëpp ci cas communautaire ñoo ngi toll ci fukki cas ak juróom-ñeent li ñenn ci wi jikkoo te baaxul Sud nee nañu ba léegi juguñu ca gargot yi tey lañu fi gën a wullee ñaay sursars yi ci yi ñoo ngi ne Sud du Quotidien moo ko bind bindit ne bàjj na gox yeeg yi soobu nañu ci xeex bi docteur Aloyse Waly Diouf bu ministère de la santé ne ñu ci xët mu di ba di ko tere ci barabu jaamukaay yàlla yi bu nuppi boo demee ci marché ak place publique yi di fa gisi rassemblement vox populi nañu masque yi ñuy takk bu ñu bëggee cas communautaire yi wàññeeku ci réew mi il dañu koy farataal forcé ñëpp ñu takk ay masque yéenekaay bi nañu ca Tambacounda moom gouverneur ba tàmbali a weeram di wax bay joxoñ photo boobee moo nekk ci xët mu njëkk l'observateur Macky mu mer la ñu xëy di tegal li ko merloo yéenekaay bi nañu bokk na ci hôtel yi mu ne woon nañu leen jox docteur yi ngir ñu mën a am fu ñuy beer nit ñi te ñu bari defuñu ko ñooñee ay daana leen di yot soleil nañu wax na ci ñu taxaw ci jàppale gi ñu war jàppale ñenn ci askan wi seen loxo jotul seen ginnaaw ci jamonoy covid gi nee na leen lu mu gën a kàdduy waykat bii di Souleymane Faye li muy ñaan moo di ñu bañ a yegg ci confinement ndax jàpp na ne bu ñu ko defee musiba lay jur ci réew mi professeur Bamba Kane ni ñu ci la tribune bu dee askanu Sénégal bëgguñu ñu yegg ci confinement total kon dañoo war a soppi suñu doxin Amadou Mouhamed Ndiaye ñu sant ko gërëm ko sant leen tamit ci safo bi ak seen kóolute gi fu leen mën a nekk ci àddina rédaction bu télévision Futurs Médias la woon ak xibaaru diggu bëccëg yi di leen ñaanal kenn dalal jàmm di ko sàkku ci yéen deseen di leen ak programme yu télévision Futurs Médias